Alassane Seck maa ngi lay nuyu. maa ngay njiitu Ligue sénégalaise de droits nekkal fi nag ak fu doomu aadama yi ñu gis ni am na ay kaddu yi nga xamante ne nag Tahirou Sarr jotoon na ko yëkkati euh, di wax euh, surtout ci ñi nga xamante ne ñooy guinéen yi ne daal bëri nañ ci dëkk bi te tamit euh, gisul ab guinéen bu am koppar goo xamante ne mës na embauché sax ab sénégalais mu mel ni kuy dal ci seen kaw ana nan nga jàngatee ay kàddoom. loolu man man kàddu yi c'est daal loolu loolu rafetul daal ci ay wax ak suñ toll suñ toll addina bi mu toll nii loolu lañ ko dépassé di singli benn communauté benn xeet pour mën gënul Sénégalais yi man dem na dem naa Gabon il y a quarante ans il y avait beaucoup de Sénégalais Burundi Congo Cameroun déjà Afrique pour mu wax la loolu à l'époque Côte d'Ivoire soo demee Côte d'Ivoire dem Treichville da nga yaakaar ne yaa ngi Médina donc loolu dafa nekk loo xam ni jarul ñu koy ñu koy yëkkati naam am na lu ko naqari xëy na mën nañ ko wax état bi mu corriger da amee ay manquement ci entrée bi mais nag euh, eggunu foo xam ne da ngay singli benn communauté parce que ñu ngi liggéey dañuy liggéey dans les règles de l'art normal Sénégal yi xëy na mënul jaay fruit mënul jaay mango mënul jaay fruit de façon normale parce que loolu xamu ko loolu fekkee ne dañ ko bëgg a ŋàññ kooku mënul nekk ndax dana am bokk benn kuréel gu tudd CEDEAO dañ ni dafa am liberté de voyage liberté de de de fu la neex ci bien ak personne ak nit ñi donc loolu soo ko waxee rek wax na loo xam ne jéwe la gënul mu wax ko parce que tu ko defee loolu rek wax loolu fële ca Congo wax ko Côte d'Ivoire wax ko Gabon kon suñu wax ko loolu wax ko Sénégalais yi nekk lu neex a dégg. te nee nañ tamit guinéen yi euh, dañoo war a fay carte de séjour euh, yow loolu euh, nan nga ko jàngatee. dañoo war a fay carte de séjour kooku du guinéen rek mu nekk malien yi mu nekk congolais yi mu nekk ivoirien yi code de séjour Sénégal dafa am devoir état bi gérer loolu bu am fa am dafa amee ay ay daan da nga war a teg ñu fay loolu moom dëgg la du moom rek du Guinéen rek étranger yëpp nag ñëw sa nga nekk am séjour temporaire da nga war a fay ak kooku moom du Guinéen rek donc am da ko devoir bu fekkee dafa am état bi corriger loolu topp ñu ko fayul dañu fay loolu yomb na looy def contrôle de temps en temps comme on fait partout dans le monde contrôlé ñi <laughs> an sa carte sécurité mi ngi nii est que fay nga daaw deux mille vingt trois deux mille vingt quatre non da nga fay ko ñu tey la sur le point sa mbokk loo xam ne du moom Guinéen rek donc li nga xamante ni euh, moo jëmi tamit euh, ci euh, activité yi mi dénoncé mu mel ni Guinéens yi tamit li ñu nangoo def comme liggéey maanaam jaayum fruits ak yooyu ndax Sénégalais yi tamit daañu ko nangu. ah loolu nga wax léegi mooy am Sénégal yi xamul ja oui parce que c'est un pays sahélien ñu ne am on a des fruits secs te suñu pays si gars yi gën mooy ay sump wala si dem yooyu amul amul valeur ajoutée doo ko comparé ak pomme wala yeneen fruits papaye wala leneen wala leneen wala leneen yoo xam ni dama nañ ko suñu lekk yaakaar naa ne du yomb ñu remplacer Guinée yi par loolu defe naa ni jarul sax ak foofu parce que loolu amul amul du am mujj donc léegi am ba des daal moom mooy. ñu bañ a egg foofu dal xool suñu xale yi nu ñu bëggee liggéey ñu jàppale leen ci liggéey bi ndax liggéey bi mooy tool yi. Mm-hmm. Sénégal yaatu na trop ma damay dem jógee Dakar dem ba Ndar lu ma gis ñaari baykat tool yi naam yombul parce que ndox amul wala boog nawet bi du gën ni ko gëstoo mais Sénégal ëpp sawaratul ci liggéey mbay doon nag mooy loo xam ni mooy manquement boo xam ne am na Sénégal loolu dañu war a xool nu koy corriger foofu lañu toll fi mu nekk. alors mu mel ni nag euh, dañu nekk ci seen droit yi tamit euh, ñoom euh, fexe ba vraiment def seen liggéey ci ni mu waree moo xam ñi di dawal Jakarta ñi di jaay fruit ak yeneen ak yeneen nga gis ne daal faw ñu bàyyi leen ñoom itamit ñu mën a dund ci jàmm fii ci Sénégal. loolu moo jiitu moom dañuy war ñëpp léegi état bi moo am devoir di contrôler ivoirien bi. guinéen bi mali congolais bi même sénégalais ordinaire sax nag war a contrôler pour mën a vérifier ndax du deful ñaaw te wala boog du saay-saay buy def carrément bëgg dem ngeen jàpp agressé dina am ñu ëpp sénégalais lanu donc tant que yow ñu ngi liggéey mën na liggéey dans les règles de la respecté loi wu Sénégal mu mel ni wax nay tamit li euh, jëm ci euh, situation ba ca Liban ndax bëri na ay askanu euh, Sénégal ñoo xam te ne ñoo ngi fa jamono ji waaye tamit dund lu métti pour yow en tant que défenseur des droits de l'homme tey est-ce que waruñoo gën a mën a sàmm ak ak yeleefu doomu aadama yi nekk foofu lee ca Liban. waaw nekk nekk un pays en guerre Sénégal amul moyen. doole à moins que mu rapatrier ñu ñibbisi am ay avion donc lëkkal loo xam ne lu yomb la est-ce que ñoom bëgg nañu ñibbisi est-ce que nekk loo xam ne léegi mu jeex donc lu ci mën a am daal moom mooy état bi daal devoir foo mën a nekk muy Liban muy Gabon muy kongo muy Burundi ne dañ leen war a sàmm encadrer leen soo amee nag guerre mën a am nag ay xalaat yoo xam ne lu dañ ciy xalaat bu baax a baax. xool bu a jege Liban pour jàppale leen mais loo xam ne fu ñu préparé ko loolu. waaye nag fi mu toll nii gis nañ ne euh, CEDEAO ci boppam euh, dafa garantir euh, dem ak dikk bi nga xamante ni nag ku ci nekk am nga ci liberté. Ah, loolaa wax léegi nii loolu kay dañ ko wax léegi la liberté. donc de de de de déstructurer les biens et les personnes loolu dañ koy bind xaatim ko ñun ñoo ko xaatim CEDEAO ñoo ko ñoo ko ñoo ko créé Sénégal ñoo ci jiitu ak Côte d'Ivoire donc loolu amuñu amuñu xalaatu wax leneen lu dul respecter li ñu signé convention yi ak traité yi am ci CEDEAO dañ am devoir respecté ko. mu métti métti ñun ñoo am devoir de respecter loolu parce que loolu mooy yoon. alors li nga xamante ne sax euh, mooy wàllum législation ndax euh, gis nañ ne euh, condition yooyu lii sax ci la ñu war a gën a mën a taxaw maanaam dem ak dikk bi ak li nga xamante ne mooy séjour yi étranger yi tamit di am ci mim réew war nañ cee mën a taxaw. ci la nekk si tous les jours ah xëy na kay mën a am xëy na am relation mun a nekk mais nag li am ba des moom mooy dafa am devoir naam yi ngi ci nguur gu ak gouvernement bu bees. mais li jiitu mooy peut-être rappeler que seen devoir mooy aar Sénégal dugubee génn bi ak même Sénégal buy dugg sax da koy xool su am aéroport contrôler sa partie à la police à l' aéroport su loolu loolu Sénégal yàlla am loo xam ne am na devoir sécuriser euh, parti bi muy pour Guinée bi muy pour Mali bi muy pour Sénégal. alors euh, mu mel ni tamit euh, Ousmane Sonko dégg nañ ko ci ay euh, kàddoom muy wax nag ci wàllum réciprocité visa yi. loolu moom la lu mën a nekk la su fekkee ne am na ci ñun avantage boo ko def rek pour dara ndax da nga am lu na xarit wala da nga ñëkk da ngay xool façon la ñu wax réalisme réalisme pratique ak pragmatisme est-ce que loolu dana am intérêt ci ñun suñu bëggee téye waa bitim réew mooy waa Tugal Europe. su leen bëgg a téye def ay euh, ay euh, euh, comment dire bi ah te ba nga xam ne Macky Sall soog a falu mais mujjul mujjul sotti parce que bi ba loolu amul njariñ da ngay topp suñu bëgg-bëgg topp suñu jikko xëy na mën nañu métti ci ñu ñu bëgg a fayonte am na intérêt ñu def ko loolu lu war xalaat la. jarul laaj li nga bëgg-bëgg te def loolu. Ousmane Sonko ñaawlu na nag euh, li nga xamante ne rek mooy nationalisme bi ñuy wax waaye tamit euh, bëgg na ñu fexe euh, ba identifier ràññee ñi nga xamante ne nag ñooy dukk ci réew mi mooy ñi nga xamante ne ñoom lañuy ñuy woowee étranger yi. mais loolu mooy li wax loolu mooy waxu responsable kooku moom réew bu nekk war nga am ay contrôle a aux frontières pays yëpp ci àddina noonu rek moom mooy kon loolu xalaat ni ko waxee mooy waxu ministre bi la premier waxu responsable te loolu dañ koy encouragé. alors nan nga jàngati tamit euh, en tant que défenseur des droits de l'homme tey euh, li nga xamante ne mooy violence yu bëri ñu nemmeeku ci campagne électorale bi donte Ousmane Sonko génn na woote euh, ngir dal mën na am waaye nag bëri na yoo xam ni jotoon na fee xew. ay ñaaw na diggante bu am après ak man ci pays la campagne bi la un pays encore en développement dafa bëri suñu démocratie yu ñuy il faut nit ñi gën a am koy yeew suñu population yi yaakaar naa ne loolu même responsable aussi bu joxe exemple loolu nag yaakaar yëpp ay jàng pour ëllëg gën a mën a encadrer suñu population yi encadrer militants yi rappeler les autorités et responsables des différentes coalitions des partis loolu moom nekk na loo xam ni ci kanam lay nekk pour ëllëg su ñëwaatee ak déwén déwénaat du àgg foofu. alors fi mu toll nii nag euh, ci législative yi lii euh, nan la ñu mën a def rek ngir vraiment ñu mën koo dund ci jàmm. waaw xanaa nekk rek responsable nekk ay kilifa kilifa yi joxe exemple seen ay militant ñu rappelé ñëpp alors ñu def retenu bañ a bañ a nekk di xëccoo ak di xuppante ndax loolu loolu loolu loolu du taxu ñu wax politique politique. mooy dañ ni élection yi le 17 novembre dimanche dafa nekk bisu yeewu sangu dëkki dem voté waat calmement loolu mooy li war a am dans un pays comme le Sénégal foofu la toll su nekk bi comparé ak pays yoo xam ne ñu Afrique donc Sénégal am na devoir autorité am na devoir responsable politique am na devoir joxe exemple bi ci dal ak tey. alors euh, fi mu toll nii nag ana ban message rek nga am looy lancé euh, candidat yi nga xam te nag ñoo war a dem ci législative yi les euh, fukki fa ak juróom-ñaar ci weeru novembre. waaw xanaa ñu calme rek dal préparer seen bopp ci jàmm wax seen militants yi jox leen exemple ci yar te gën ak respectante loolu moo jiitu moo mujj su amulee am rek ñoom ñooy responsable yi te kooku amul kenn koo xam ne am na ci intérêt donc lépp rek na nekk ci jàmm dal respectante. ñun benn bis doon dimanche ak ñëpp war a xëy liggéey Sénégal foofu la toll en 2024. Alassane Seck jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu Ligue sénégalaise des droits humains maanaam ñi fi taxawal ak yelleefu doomu aadama yi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci encore à vous.